ñoom ñu ngi ko topp ne ne ne daal dañ koy dañuy daw ak seen i tànk ñii di ñii di yuuxu ñii di daanu ay yësi donc daal vraiment lii moom ñu gis fii tey euh, jéggi na dayoo Seydina jéggi na dayoo jéggi na dayoo Seydina Omar. Ah, jërëjëf Mamadou Matar euh, daw yaram gi mu daw yaram foog na te weesu na fa ndaxte bu ma gisee ay nit di dox ak seen tànk di topp ab cortège loolu dafa doon loo xam ne nii lu daw yaram la. loolu dafay wane ne askanu Sénégal ñu jar lebal lañu ñu jar lebal lañu parce que boo leen lebalee bés dina ñëw nga soxla ñu fay la ko te yaakaar naa ne Thierno Daf li nga xam ne gis nañ ko fi tey wane neen askan wi reconnaître nañu liggéey bu am solo bi nga xam ne Sidi Lamine Niass liggéeyal na leen ko waxuma la sax taalibe yi nga xam ne ñoo fi def déplacement waaye askan wi seen jëm bopp ñoo génn kenn ku nekk di sargal ak sargal ki nga xam ne ni moom moo di El di la Lamine Niass kon no lii daw na yaram kon Thierno lii li li li lii daal mun naa xam ne foo ko natt rek weesu na foon ak lu ci amante am na ngeen jàpp ne fu mu toll nii jël nañu autoroute bi ànd ak cortège bi utali di nekk fa li nga xam moo di ca diwaanu Kaolack euh, kon mu ngi xam naa ne du ñu def lu may bàyyi rek image yi tuuti rek le temps que euh, ñu ñu mën a ñu mën a dab li nga xam moo di corbillard bi.